Ngagne ba Touré bu Pastef daal nay daal di àddu rek ci mbiru recours ba nga xamante ne si sax nag daan nañ koy daal di déposer contre ki nga xamante ne si nag moo di Barthélémy Dias ba tax sax nag ñu bëri rek di am lam-laame ci li nga xamante ne si nag moo di ndax Barthélémy Dias dañ koy daal di invalider li nga xamante ne si nag moo di candidature am wala sax dañuy daal di rejeter rek liste ba nga xamante ne si nag moo di liste sàmm sa kàddu ba nga xam ne ci la daal di nekk tête de liste moom ki nga xamante ne si nag moo di. Ngagne Demba Touré kàddu yam ca yëkkati rek mooy ki nga xamante ne si nag moo di Barthélemy Diaz waxul bokk ci élection yi te ci it moo gën a xam ni que moom Barthélemy Diaz waxul bokk ci li nga xamante ne si nag moo di élection yi li ko waxal naka du leen lu dul condamnation am jëm rek ci mbiru ki nga xamante ne si nag moo di affaire Ndiaga Diouf teg ci daan nay daal di xamle yoon moo daal di wax lu ni mel de même que moom Barthélemy Diaz sax nag daan na woon daal di toog foofu ci assemblée nationale yëkkati yëkkati yooyu kàddu rek jëm rek ci li nga xamante si nag moo di participation ci ay élection dina it ay précision di xamle ki nga xamante ne si nag moo di Barthélémy Dias soxlawuñ rajo ko ci liste électorale yi ngir rek mu bañ a bokk wante moom moomee xamle na it ni Barthélémy Dias mënul bokk ci élection yi même si que sax nag bu nekkee candidat ba daal di gagné élection yi moom moomee it bu ñu demee rek ba xam ni que moom moomee nag éligible pour nekk candidat wala sax nag pour occuper Rosso mën nañ ko daal di déchoir de son mandat bu sukkandikoo rek ci article LO 162 bu code électoral tax ca loolee nag muy xamle ni ki nga xamante ne si nag moo di Barthélémy Diaz moo leen gën a xam ni que rek mënta nekk candidat si élection donc moom mu ngay laaj rek lan moo waral rek ñu daal di koy def ci li nga xamante ne si nag moo di ci liste